dañu ñëw Thiès pour waxtaan euh, euh, waxtaanaat encore beneen yoon tey parce que ñëwoon nañ fi plusieurs fois lu bëree bari pour euh, waxtaan ak nit ñi parce que dañu considérer ni que Thiès c'est un lieu central boo xam ni yu bëri war nañ ko fi mën a def te war nañ ko fi commencer def loi bi ñu voté ñu ngi ko voté le 14 mars 2014 mais avant ñuy voté loi bi. depuis 2008 donc ñu ngi ci doon liggéey mais amuñu woon résultat donc bi régime bu bees bi ñëwee la ñu la ñu la ñu commencé di am résultat donc si sous le magistère donc di président Macky Sall que la ñu commencé donc di am résultat ba tey gi ñu am loi bi nga xam ni loi bi nga xam ni mooy loi yi gën a baax en Afrique waaw loolu aussi vraiment il faut que ñu wax ko loolu nag li ñu ko moy mooy bi ñu commencé di di xeex xeex bi dañoo dem. seet ñi nga xam ni tey yàlla ñoom la fi teg ñu ay kilifa diine kilifa diine yi fi ñu njëkk a dem bien que Sénégal majorité bi yëpp ay musulman lañu mais fi ñu njëkk dem mooy chez le cardinal Théodore Adrien Sarr moom la njëkk a seeti bi ñu ko seetee mu waxtaan ak ñu euh, joxe ay instructions. même au niveau des églises pour que dans les prêches yi nga xam ni dañ koy def ñu permettre ñu ñu permettre acteurs yi ñu wax même au niveau des mess te loolu aussi c'était très important une fois même on a on nous a permis au niveau de de Gorée pendant un dimanche de participer à une messe et de euh, passer notre message loolu mu nekk lu am solo bi ñu jógee foofu ñu dem seeti euh, Tivaouane ñu rencontrer Euh, Abdou Aziz Sy junior moom tamit mu jàppale ñu bu baax a baax a baax jàppale ñu accompagner ñu ñu jóge fa dem Touba dem Thiaw dem Ndiassane dem Thiénaba dem nañu fépp waaw kilifa dem ñu dem Yoff fi ñu dem rek ñoom ñu def ko seen xeexu bopp. lan moo yéexal nag application bi. non application bi li ko xawoon a yéexal voté woon nañu loi bi mais dëkk d' application yi moom la doon xaar ñu signé ko. mais signé nañ ko léegi léegi kay amatul dara kenn fii amatul benn prétexte boo xam ni mën nañ ko teg pour wax ni que loi bi war ñu ko appliquer waaw application loi nag yombul saa il faut ñun ñëpp ñu d'accord ci voté loi peut-être yombul aussi mais application bi moo gën a jafe. Mhm. waaw parce que ay habitudes yoo xam ni pendant presque cent ans ñi ngi ancré wu taxaw nga xëy suba bugg leen changer loolu du yomb waaw loolu mais ñun comme que ñun am nañu volonté. pour loolu pour que loolu dañ parce que ñun combat bi ñuy mën a ñun xam nañ lan la combat bi mooy protéger suñu ay euh, doom suñu ay sët pour que bu ëllëgee ñoom ñu bañ a tombé ci piège bi nga xam ne tey industrie euh, daf ko gasal euh, suñu réew yi parce que industrie ñëpp xam na ni que ñi ngi jël seen ay jub jumtukaay seen ay liggéeyukaay di ko indi dans nos pays là parce que li tax mooy parce que suñu réew yi amul peut-être que cadre juridique bu permettre ko Euh, ñu mën leen gérer mais tey ji Sénégal am na ko parce que am nañu loi am nañu ay décret d'application mais am na yeneen dëkk yoo xam ne ñu fi en kii en Afrique amuñu loi amuñu dara industrie bi dafa lu ko neex la fay def ba noppi industrie dafa am loo xam ne mi ngi koy def loo xam ne aussi ñun war nañ ci wax muy euh, le trafic illicite des produits du tabac loolu dafa dafa am importance dans le monde parce que loolu bu ñu ko deful cigarette dafay gën a yomb parce que aujourd'hui ñoom ñooy def trafic bi tey ji yow soo bëggee jënd conteneur cigarette euh, cigarette foo ko mën jënde du ci boutique bi du ci koñ bi foo ko mën jënde kan moo mën am moyen tey ji defar conteneur cigare di ko jaay loolu industrie rek moo ko am donc au niveau mondial ñoom ñooy def le trafic ba noppi aujourd'hui ils veulent s'impliquer dans le contrôle de ce trafic te loolu ñun duñ ko duñ ko nangu waaw boo tax ñu créer l'observatoire euh, euh, euh, euh des produits euh, du commerce illicite des produits du tabac pour que ñu mën aussi gérer cette question là parce que cette question la dafa am importance parce que après le la convention Euh, OMS dafa defar beneen protocole bu ñu tuddee le protocole euh, contre le commerce illicite des produits du tabax te loolu ah mais di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom loolu rek la ñu mën def waxtaan ak ñoom pour que ñoom aussi ñoom ñu nekk ay relais parce que xale yi seen papa yi am na ñuy tox seen yaay am na ñuy tox ñun on on a pu arriver à à à à faire cesser à des de de fumer à travers leurs enfants parce que seen doom yi doo dem. li leen wax jox leen ay éléments jox leen ay euh, ay support ñu dem seen kër yi wan ko seen papa yi ni ni papa fii kër gi bu fi bu fi toxati xam nga yow sa doom tey ji bu ñëwee ba la taxawa naan la yow bul toxati ci kër gi yow da nga am kersa ba sax da nga mën nga bay donc loolu aussi arrivé nañ ci ba noppi xale yi ñun dañ leen a conscientiser ba tey ji vraiment ñoom seen bopp sax nangootuñu ku tox si seen biir parce que wax nañ leen ni que am na lu ñuy tuddee le tabagisme passif waaw booy tox Euh, boo nekk ci place boo xam ne dañu fay tox téew toxloo da dafa mel ne da ngay tox te loolu moo nekk dans les bars les cabarets les restaurants euh, te loolu aujourd'hui loi bi dafa dafa dafa interdire totalement nga nga tox ci lieu yooyu suuf que nga am li ñuy woy un fumoir bi mooy dafa am nag condition yoo ko mën a defee doo ko def ci n'importe quelle condition te loolu nous vous nous vous renvoyons la loi qui va vous permettre de comprendre un peu fumoir yi ni ko war a defee tey jii ñun on considère que loi bi ñu am sax c' est une loi cent pour cent cent waaw kooku moom c' est clair ah parce que condition yi nga war a teg pour mën a def fumoir man gisuma fii benn benn benn établissement bu mu jaral nga jël au moins peut-être cinq cent million wala di ko def ci fumoir man loolu gisuma ko waaw léegi moom ku bëgg a toxati da ngay dem ba àllukañ <laughs> nga taxaw fa nga tox